xam-xamu xadis ban ngëneel la am ak ban atte la am ci biir diine lislaam mooy lu munta ñàkk la ulumul muy xam-xamu xadis am na say boone mooy xam-xamu lislaam bi gën a xóot nag sax ci xam-xami lislaam yi ni boroom xam-xam mathématique bi xamee mat noonu lay xamee xadis bu boo waxee ba àggari ma la déedéet boobu bokk ci teyit mooy xam-xam bi nga xam ne it xeetu lislaam rek ñoo ko jagoo mooy alxuraan dafa ñëw rek di joxe àtte yi globalisé rek di joxe julli leen woor leen joxe leen asaka def leen nàngam rafetal leen jikko yi waaw loolu nuñ koy defee bu ci ñaar ñaata xamuñu ko yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ñëw jàngale ko ba noppi julli ci kanam nit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mboole mbokk yi man la ibrahim xalil al ibnu maa ngi leen di nuyu di leen yëgal daaray alquran joo xam ne ay jigéen lañu fi jàngal alquran ba ñu mokkal ko buñ jàngee alquran ba pare rek ñu formé waat leen ci xam-xam ba bu ëllëgee ñu doon ay boroom xam-xam yu mag a mag a mag a mag ci diir bu gàtt daara jooju mi ngi fii ci ngaabu mayor yor ko fi ñoo ngi leen koy yëgal képp koo xam ne am nga sa doom na gaaw ñëw ñu euh, jël ko weer wu dee euh, trente cinq mille la ñuy fayu koo xam ne it bëgg naa jël am ndonga di ko faye fayal it loolu waqfu lay doon boo xam ne lu am solo la ñoo ngi ko koy ubbil kon gaaw leen ñëw yéen ñëpp ngeen inscrit wu incha allah pour xale yi mën a jàng alquran mokkal ko ci diir bu gàtt daal di it euh, am xam-xam jërë jërë ngeen jëf 78 380 46 10 mooy numéro bi nga xam ne ku ci bëgg a jokkoo ñun mën nga ko cee jokkoo ak ñun 78 380 46 10 ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammadin sayyidi al awwalina wal axirin wa alihi wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk auditeuru Fafa TV yëpp ak fépp fu ngeen ñuy mën a jotee moo xam ci biir réew mi la waaye rawatina ci biti réew ñu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante suñu borom ci ay xéewalam yu ñu mënul lim ñu ngi julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte di dellu ak yéen ci suñu jotaayu jàngat bi nga xam ni saa su nekk ñu ngi leen koy indil comme ni ngeen ko xamee rek jotaayu jàngat moom li ko tax a jóg mooy jàng ak jàngale waaye itam fàttali suñu bopp di fàttali suñu mbooleem auditeurs yëpp ay tomb yu am solo ci seen wàllu diine si loolu jotaayu jàngat dafa tànn benn thème boo xam ne jàpp nañ ne thème bu am solo la te bu mat a fàttali la itam thème boobu mooy lan mooy lii di xadis ak xam-xam bi nga xam ni moom moo ñuy permettre ñu xam luy xadis bi ñu dajalee tomb boobu dañoo ñëw gaaral ko suñu sëriñ muy fadilatu cheikh docteur Mouhammad Ahmad Lo docteur Mouhammad Ahmad Lo moom boroom xam-xam la imaam la jàngalekat la waaye itam yarkat la moom moom mooy recteur école supérieure africaine d'études islamiques lii lenn rek si ay yëngatu yi nga xam ni mu ngi koy def dañ koy ñaanal suñu borom mu sàmmal ñu ko te aar ko bàyyi ko fi ba ci kanam ñuy mën a jëriñu ci xam-xamam kon fadilatu cheikh ginnaaw bi ñu la dalalee ci suñu biir jotaay jàngat ñu ngi lay jox nga ubbee nga nuyoo ak mbokk yi ñu soog a tàmbali suñu liggéey bismillah bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh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 ak internet yi nga xam ne ñooy topp ci Fafa TV ak ñi ci jokk ñëpp di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen nuyoo di leen encouragé bu baax itam ci liggéey yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy def ci jot li lépp loo xam ne dafa nekk kàddu yiw eh, yoo xam ne daa war a àgg ci xeet wi eh, ñu di leen ko jottali ba ñu mën a nekk muy ci biir réew mi ak bitim réew ñu mën cee jot di leen gërëm it ci jotaay bii Eh, ngeen déplacé jóge fa sore ba ñëw ngir jël si ay kàddu yoo xam ne am ngeen yaakaar ci ne xëy na mu mën a jëriñ askan wi yàlla na suñu borom tabaraka wa taala bañ a tas yaakaar jooju amin ya rabbal alamin jërëjëf fadilatu cheikh si ñaan yi kon xam naa dañuy daal di dugg ci suñu liggéey rek te li njëkk liñ lay laaj fadilatu cheikh mooy lan mooy xadis waaw xadis de daanaka boo ko waxee noonu rek day daal di jëm ci alxadisu nabawi mooy e, xadis bu fekkee dañoo jël kàddu gi noonu ci kàllaam ak li may firi rek mooy wax waxtaan maanaam bépp waxtaan waxam daa jóge ci làmmiñ doomu aadama di ko déglu am lu mu ciy jëlee rek loolu mën nañ ko tudde xadis loolu moo tax alquran sax ñi di ko tudde xadis wa man asdaqu min allahi xadisan la borom bi tabaraka wa taala wax tudde na foofu alquran xadis waaye nag alxadisu nabawi buñ ko dee wax mooy lépp loo xam ne dañ koo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa doon ay wax mel ne euh, <coughs> yonent bi alayhi salaatu wasalaam mboolem wax yi wax yëpp ci ay xadis innama al amalu binniyaat wala lu roog moom loolu wax la jëfamit dañ koy dugal ci biir xadis euh, luñ jëf mu fekkee ko te waxu ca dara sax dañ koy boole ci xadis lu tax mooy moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam léppam day diine yàlla da ko yónni mu war a jot jottali jottali nag day am ci làmmiñ waaye dana amit ci jëf maanaam li muy jëf nit ñu gis ko xam ne lii mu def moo xam daa aju ci wàllu pas-pasu doomu adama wala mu aju ci ay jaamu yàlla am wala mu aju sax ci ay jikko yu rafet yoo xam ne da koo melo woon alayhi salaatu wasalaam dañuy xam ne lii lépp ci diini ji ci la bokk lépp loo xam ne doomu aadama toog na ci kanamam def ko mu fekkee ko te waxu ca dara dañuy wax ne lii dugg na ci biir li dagan kon su boobaa waxul waaye day mel ne wax na kon dañuy wax ne daal xadis mën naa làmboo li ñuy wax lisaanul maqaal muy li nga xam ne da wax ci làmmiñam ñu koy dégg ak li ñuy wax lisaanul xaal muy li nga xam ne da koo jëfe wala ñu jëfe ko mu noppi ca lenn lu ci nekk am na ay misaal yu baree bari yoo xam ne xëy na waxtu bi mën na ko bañ a joxe waaye ñu xam ne daal njàngaleem yonent bi boo bëggoon a gàttal dañuy wax ne njàngaleem yonent bi ci waxam ak jëfam ak noppeem sax àgg na ci loolu dem na ba àgg sax ci li ñu tuddee taqrir wala iqraar yemut ci luñ def mu fekke ko waaye lu lu benn saxaabi def fekk mi ngi dund moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi dara wàccu ca dañuy xam ne loola dagan na moo tax jaabir bin abdullah radiallahu taala anhu eh, da doon wax ne ci li ñu tuddee al azlu muy fexe ba eh, seen jébéer yiñ doon yor muy ay jaam fexe bañ bañ a ëmb ndax su xasee ëmb am na atte yu xas tegu ci seen kaw Euh, moo tax suñ daan ànd ak ñoom buñ tolloo fenn fii dañuy wattandiku ndox mi dem ci seen biir ñu génne ko mu ne loolu dañ ko daan def fan la jaabir ibn abdullah tegtaloo ba ne loolu dagan na daf ne kunna nazilu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina walaw kaana cheyan yunha anhu la nahaana anhu alquran nee na beneen bi daf ne wa kaana alquranu yanzil kunna nazilu walquranu yanzil falaw kaana cheyan yunha anhu la nahaana anhu alquran nee na jëf jooju daanan ko def jamono yooyu alxuraan a ngi wàcc su woon ne lu ñuy tere la alxuraan dana wàcc tere ko kon foofu tomb bu am solo am na fi muy li saxaaba yi doon def te terewuñ leen ko dañuy xam ne ci diine ji la bokk lépp loo xam ne alxuraan mi ngi wàcc saxaaba yi def ko te alxuraan wàccul tere ko te dañu xam ne loolu ci diine ji la bokk loolu nag tomb bu am solo daf fiy juddoowaat mooy saxaaba yi dañoo am loo xam ne kenn amu ko mooy dundandoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuy dund ak yonent bi sañ ngaa féetal bu la neexee mën ngaa làmbatu soo defee su dee noona danañ la ci bàyyi su dul noona alxuraan dana wàcc ne du mu loolu nag kurul ñoom rek amoo loolu muy tomb bu am am solo moo tax ñii dem ba jëmmi jamono ñu bëgg a tegtalu ci ñoom léeg-léeg nga dégg ku lay wax ne biddaa bu rafet mën naa am ndax abu hurayra da daan def saa bu jàppee julli ñaari rakkaat loolu kenn sunt ko ko woon mm-hmm. am na sahaabi yi boo xam ne dafa ñaan ak ñaan boo xam ne yonent bi jàngalu ko ko bi mu noppee yonent bi gis malaayika yi di ko jëkkante xamuñu ne ñooña lañ doo jëf sañ nañ ko ndax suñ juumee wax yu day daal di wàcc ne kii juum na li mu def du noonu suñ juumul wax yu da leen ci daal di bàyyi mm-hmm. ginnaaw yonent bi nag kenn amatut lu mel noonu kon daal xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sunna yonent bi sallallahu alayhi wa lu ci nekk mën nga koo wax mooy waxam ak jëfam ak lépp loo xam ne eh, wéyal na ko maanaam validé na ko suñ ko doon wax ci beneen waxin alhamdulilah jazakum allahu xayran cheikhana ci tontu bu leer boobu waaye sëriñ bi ginnaaw bi nga ñu xamalee lii di xadis ndax mën na ndax dafa am li ñuy wax xam-xamu xadis ak bu amee mooy lan lan mooy xam-xamu xadis ulumul xadis nag muy xam-xamu am na sooy boone mooy xam-xamu lislaam bi gën a xóot nag sax ci xam-xami lislaam yi te mooy xam-xam bi nga xam ne it xeetu lislaam rek ñoo ko jagoo xam-xamu xadis dafa jël ñaari pàcc benn bi mooy xam-xamu li ñu tudde isnaad muy chaîne de transmettre bi nga xam ne ci la xadis bi di jaar ndax kii toxal xadis bi boo jëloon tey al imaam al buxaari wala muslim wala abu daawud wala tirmisi wala nasaay wala sax imaam ahmad ibn hanbal wala malik al imaam malik bu lay nettali xadis du tëb tëb rek ne la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye da lay wax ne diw sangam nee na ma maanaam boo ñëwoon ci al imaam malik da lay wax ne jëlee naa ci muhammad ibn shihab az-zuhri moom itam mu jëlee ci diw sangam kooku jëlee ci abdullah ibn umar ibn al-xattaab kooku jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam chaîne boobu muy tudd xam ne ay góor la diw nee na diw nee na diw nee na ba àgg ci yonent bi xam-xam boobu bu xóot la boo xam ne fànni xadis yu bare bare bare da ciy juddoo muy ulumul isnaad ñu koy tuddee ilmu diraaya diraaya boobu buñ ko dee jàng benn danañ jàng ndax ñii ñu tudd ci chaîne bi ba mu àgg ci yonent bi ñooy ñan ndax xamees na leen wala xameesu leen ah xam nañ leen biñ leen xamee ci ñu leen xam seenug maandute seenug wax dëgg fan la toll seet nañ ko ba xam ne maandu nañ wax nañ waxkati dëgg lañ beneen gastu biñ maandoo doon ay waxkati dëgg seenug mokkal fu mu toll borom xel yu neex lañ wala dañuy fàtte wala sax doon nañ fàtte ba mu yàgg dara gaar leen ñu commencé euh, doon nañ mokkal ba mu yàgg dara gaar leen ñu commencé di fàtte yi may tudd yëpp benn bu ci ne ab xam-xam bu taxaw la noonu ñu koy nag bu sottee chaîne boobu buñ gëstoo ba xam ne ñi ko solo ñëpp ñu maandu lañ ñoom ñëpp ay mokkalkat lañ la ca des mooy ndax kenn ku ne nag nii ñu ko tërale diw mii ñu ne diw sàngam mu jëlee ci diw ndax diw mi wér na ne jànge na ci diw loolu beneen xam-xam bu taxaw la ndax diw ma ca tegu jàngewaat na ci diw ndax jàngewaat na ci diw ba àgg ci jànge ci saxaabi bi saxaabi bi jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su yii yëpp dajee nag nga ne ah bi xadis bi ñu ko solo ñépp ñu maandu lañ ñëpp ay mokkalkat lañ kenn ku ci ne ki nga ne diw nee na ma seet nañ ko ba gis ne diw sangam jàngal na la kon nee na ma jooju mën nañ koo wéyal su boobaa ñu jox xadis boobu benn àtte xam-xam boobu ñu tuddee xam-xamu isnaad muy diraaya xeetu xam-xam yu bari juddoo na ci am na xam-xam bu ñu tuddee aljarxu wa taadil ci ci biir lañ ko jëlee am na xam-xam bu ñu tuddee taxriij ci biir lañ ko jëlee am na xam-xam bu ñu tuddee alwafayaat ci lañ ko jëlee am na xam-xam bu ñu tuddee almawaalid loolu lépp day dugg ci tarjama euh, gaa yooyu yi nga xam ne ñooy solo xadis bi ndax léeg-léeg dafa mën a am am na ay kàccoor yoo xam ne dañ daan toog fële rek jékki-jékki tër ab xadis buñ koy def dañuy seet benn chaîne boo xam ne bu wér la chan bu wér nga xam ne jëlee nañ ci Malik mu jëlee ci Ibn Shihab mu jëlee ci Nafi mu jëlee ci Abdullah ibn Omar mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moom ña fa nekk ñëpp ñu wér la te kenn ku ci ne jàngal na ka ca des mu jël nag benn texte teg ko ca boo xam ne wérut moo ko créel boppam foofu problème bu mag day judd ci ku xamul hadis lan moo taxoon waroon xam-xam hadis lu mel noonu ñu mën koo trouver mooy dañuy ñëw ci Malik mboolem xam-xam yi nga xam ne jëlee na ko ci ibnu shihab az-zuhri ñu mokkal ko soo indee beneen xadis bu bokkul ci yooyu ñu bii bokku ci ñëw ci naafi ci zuhri mboolem la mu déggee ci naafi ñu kaaru ko kenn mënatu la indi beneen xadis boo indi te bokkul ci yiñ kaaru ñoo xam ne boobu wérul foofu lañ jaar ba kenn mënatu la teg ci xadis lu ci bokkul moo tax mboolem xadis buñ tër teg ko ne yonent bi moo ko wax te waxu ko ni boroom xam-xam mathématique bi noonu lay xamee xadiis bu boo waxee ba àggar mu la déedéet boobu bokk ci loolu nag xam-xam bu kéemaane la boo xam ne suñu borom tabaraka wa moo ko sëgale xeet wi wattoo ko itam diine yàlla ji ndax kat ku wattu woon alxuraan te wattu woo sunna it maanaam diine ji ci boppam moom mën naa mën naa yàqu kon xam-xamu xadiis xam-xam bu am la xam xamu bu xóot la boroom xam-xam yi taalif nañ ci ay téere yoo xam ne téere yu xóot la yoo xam ne day mel tiimee te xamoo ko daanaka dara doo ko ci mën a xam loolu moo tax xam-xam bu doy waar la nekk nag ay fànn yoo xam ne ci biir xam-xam xadis rek dem na ba ci lu ëpp ñeent fukki fànn ak nangam yoo xam ne yëpp dafa dugg ci ulumul xadis ne benn bu ci nekk fànn gu ñuy jàng la pour mën a àgg ci xam xam-xam xadis mhm. alhamdulilah jazakumullahu xayran fadilatu cheikh mu mel ni euh, li nga ñu xamalee ni xam-xamu mhm. na ci loolu tamit bëggoon nañ xam lii nga ñu xamal léegi muy xam-xamu xadis mm-hmm. ban ngëneel la am ak ban atte la am ci biir diine lislaam waaw lañ cay dolli sax nag mooy eh, xam-xamu xadis boobu ma doon junj sànq mm-hmm. yemul ci jàng xam-xamu isnaad waaye jëmmi texte bi ci boppam eh, yeneen i xam-xam dafa jóg taxawaat ci kawam muy ni ñuy firee xadis boobu ak xeetu texte yi am ndax lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa la jóge wala daa wax lenn li lenn li ab saxaab yi moo ko wax ñu wutal ko autour di ko tudde almudraj ak fànn yu dul jeex yoo xam ne yëpp day dellu ci biir texte bi ci boppam texte boobu nag boo ko boolee ak matn bi moo lay jox sunna yonent bi sallallahu alayhi wa defe naa ne li nga laaj mooy place bi mu am ci lislaam euh, xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax munuñoo bañ góor góorgóorlu ba xam la ca wér ak la ca wérut gannaaw bu ñu xamee li ci wér ak li ci wérut ñi xam xadis yii lan lay signifié lan lay firi bañ man koo jëfee mooy sooy boo ne mooy lislaam euh, ñu bari dañuy wax ne alxadis mooy almastaru althani li tashri dañuy wax ne mooy deuxième source boo xam ne pour ñi xam sharia al islamiyya kooku moom alquran mooy premier xadis mooy deuxième waaye xëy na su fekkee ne dañuy xool ne euh, alquranul karim moom rek mooy téere boo xam ne waxi sunu borom tabaraka wa taala la xadis maanaam yi ci yàlla la jóge waaye wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam la ndax xadis waxyu la euh, suñ ko dee jiital di wax ne alquran mooy première source bi bii mooy deuxième ci wetu sellaay bi la maanaam waxi yàlla moom dara mënta yem ak moom waaye nag su fekkee ni ci wàllu tashriya la muy indi sharia xadis ji boppam mooy atte alxuraan waaye du alxuraan mooy atte hadis loolu nag bu ñu ko waxee bu xaw a doy waar al imaamu daarimi indi na benn bunt ci sunnanam ne baabun as sunnatu xaakimun ala alquran sunna mooy atte alxuraan nee la lu tax mooy alxuraan dafa ñëw rek di joxe atte yi globalisé rek di joxe julli leen woor leen joxe leen asaka def leen nangam rafetal leen jikko yi waaw loolu nañ koy defee su doon téere bi dane putt rek ne julli leen yan julli moo am mooy farata ñaata julli la nekkul ci alxuraan luy seeni tur nekkul ci alxuraan julli gu ci ne ñaata rakkaa la suba tisbaar takkusaan timis gee bu ci ñaar ñaata rakkaa la xamuñu ko yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñëw jàngale ko ba noppi julli ci kanam nit ñi ñu gis leen kon loolu mooy sunna moo lay firil alxuraanul karim su la ko firilul doo ko dégg boo demee ci joxe asaka noonu la demee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jàngalee julli ba àggal moo ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ma doon jullee aj bi mu noppee daf ne xudu anni manasikakum wan nit ñi ni ñuy aje fenn fu nekk mu taxaw fa ñuy xool di enregistré muy def ba jeexal na leen mu ngoog def leen noonu asaka noonu la ko jàngalee lépp loo xam ne lu aju ci diine ji la alxuraan bi mu ñëwee daf koo joxe ci anam goo xam ne wóor na ne aajana keneen ku ñëw leeral ko moo tax yàlla yoon yonent bi su woon loolu téere bi danaan putt rek mun a fab leen kenn ku nekk na jàng rek te jëf waaye suñ ko defoon duñ dégg dara ñu gën a dégg arab ci àdduna doon waa Quraysh suñ leen wàccee loon alquran ne leen mu ngoog jëfe leen ko Abubakar ak Omar ak Osman ak Ali du tax ñu mën koo jëfe laaj na keneen ku ne ci seen biir koo xam ne yàlla danaan ko defal muy def bàyyil muy muy bàyyi wa maa yantiqu anil anil hawa in huwa illa kon yàlla da koy wax yu ne ko lii nii lañ koy defee mu defee ko noonu nit ñi gis ko man koo roy kon sunna bu la neexee ak xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la neexee nga ne moom mooy pirim alquran alxuraan ay texte la yoo xam ne dafa aaja leeral kenn mënu koo dégg kenn mënu koo jëfee lu dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw jëfee ko ci kanam nit ñi wax leen ñu dégg mu def ñu gis ñu xam ne lii kat kon ndekete nii la moo tax alxuraan ci boppam am lënt amu ci fii nu toll nii di wax ak yow alxuraan amatum lënt léeg-léeg nga dégg ku indi loo xam ne jàpp na am lënt la sonn ca lool ba teg waaye laaj ko rek ki nga xam ne moom lañ ko wàcce woon ci moom moom lan la ci déggoon soo dellusee rek xam ne lënt amul foofa kon téere la boo xam ne wàcc na borom bi tabaraka wa taala garde ku boppam inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun sunna ñëw war a leeral alquran yàlla gardewaale ko ci biir moo tax boroom xam-xam yi gën a xootal ci gëstu dañuy wax ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun dikr foofu dañ ne li muy firi mooy alquran ak sunna ñaar yëpp lay firi lu tax ñu ne alquran day indi dikr jublu ci alquran waaye léeg-léeg mu indi dikr fekk lam ci jublu mooy alquran ak sunna bokk na ci fi zikri ñëw ci alquran te fekk alquran rek lañ sunna lañ ci jublu mooy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun foofu jubluwu ci ahlul quran niwul laaj leen rek ñu jàng alquran te jànguñu sunna parce que ku jàng alquran te jàngoo sunna doo mën a dégg diine bañ lay laaj kon daal makkaana bi nga xam ne moom la xadisu yonente bi salallahu alayhi wa sallam am ak sunnaam ci diine lislaam mooy lu munta ñàkk la moo tax ñi seenug réer àgg ci ñu ne dañuy téye alxuraan rek bàyyi sunna teg ko fële di tudde seen bopp xaw ma ay quraan yi moom xaw ma yu mel noonu ñooñu man jàpp naa ne ñooy kuréel yi gën a réer ci àdduna doo mën a julli doo mën a woor doo mën a joxe asak jikkoy lislaam doo ko xam amut lenn loo xam ne ci àttee lislaam yi loo xam ne mën ngaa ñëw ci alxuraan jël ko génne ko ci te delloo ci sunna parce que ñooñu man léeg-léeg de reer damay jàpp su ma leen gisee suñ nee julli ñaari rakka la ñuy julli waaw ku la ne nii ngay def nii noonu la ñu rukkoo foo ko jële foo ko jële ku la wax ne rukkoo nii la ku la wax ne sujjóot tam nii la ku la wax ne boo taxawee say loxo fii la war a nekk wala fii la war a nekk ku la wax ne da ngay jàng alxuraan yooyu yëpp jëlee ko ci yaa ngi tibb ci sunna ba pare daal wax ne alxuraan kese ci la jàpp loolu ay mbir yu doy doy waar la yoo xam ne seytaane mooy jekk doomu aadama lay rek macha allah jërëjëf Cheikhana ci leeral boobu nga ñu leeral place bi nga xam ne moom la xam-xamu xadiis am ci lislaam waaye fadilatu cheikh léeg-léeg dañuy faral di dégg ñu naan xadis bi kat wérul ñun li ñu bëggoon xam mooy naka lañuy ñuy xamee xadis bu wér bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka li ma junj léegi eh, ci lañ koy xam mooy boroom xam-xam bi moom loolu lu simple la ci moom maanaam boroom xam-xam bi jàng xadis ba nekk ci spécialiste eh, di ko laaj xadis bi ni nga xamee wérut mi ngi mel ne Ehm, mathématicien bi nga ne ko léegi biñ ne cinq plus cinq égale dix ni ñu xamee ne la laaj bu mel nga koy laaj léeg-léeg nit ki dana lott ci nu koy xamee sax kenn ci waroom xam-xam yi Ali ibn Madini dañoo ñëw laaj ko ab xadis mu ne wérut ki ko laaj ne ko waaw lii nu ngeen demee ba xam ne wérut mu ne ko demal ci diw sàngam nga laaj ko bu dem ci diw sàngam fàttaliku ma Yaxya ibn Maïn wala Ahmad ibn Hanbal mu laaj ko mu ne wérut mu demaat ci keneen laajaat mu ne ko wérut kenn ku ci ne bu ne ko luy sa dalil ci ne wérut mu da koy wax demal ci diw mujj ñi koy yebalaat ci ñam yaaroon bu jëkk bi mu delsee mu ne ko gis nga xadis bu wér ak wérut mu ngi mel ne or boo xam ne da nga ko jox ko tëgg ne ko xoolal ba xam li or piir la wala du or piir dojam boo mu yor di xoos ba ne la léegi lii kat or pur la wala mu ne la njaxas la su la ko bëggoon a leeralal dana jafe ci moom waaye ab xam-xam la boo xam ne nit ki da koy dund waaye nag teewut nag comme que xam-xam la boo xam ne des koy jàng manees naa xam nañ koy jànge la ci jiitu moom mooy jàng xam-xamu taarixu ñi nga xam ne ñooy solo xadis yi te day dugg ci biir xam-xam bi ñu tudde aljarh wa taadil xam ñi nga xam ne ñooy ñi maandu ak ñi maanduwul ñi mokkal ak ñi mokkalul ñi nga xam ne xam nañ ne ñii lu ñu wax euh, wérut ñu xam leen ñooñu ñëpp dañu leen a takk mokkal leen mën leen a tari xam kañ lañ judd xam nañ kan lañ faatu ndax wadd tekkatu xadis day yomba trouver loolu ci borom xam-xam xadis léeg leen nga gis koo xam ne day wax ne euh, diw sàngam nee na ma nàngam ak nàngam ak nàngam ñi xool gis ne moom mii kat euh, di wax ne diw nee na ma moom dajewut ak diw parce que bi diw di faatu moom ci juróomi at la toll kon kooku jëlewut ci moom dara ay wax léeg mu ne diw sangam haddasani fii Baghdad maanaam parce que kooku siiwee na lool ne Baghdad la dëkk ñi gëstu ci xam bu ñu tuddee ilmul buldaan ñi gëstu gis ne moom mii di wax ne haddasani fii Baghdad maanaam hadis bi ci moom laa ko jëlee ci Baghdad ba mu fay ñëw moom fekk na diw sangam nekku fa jóge na fa ba dem béréb sangam wala ba mu fay ñëw mi ngi ci kaso bi baqi ibn maxlat di borom xam-xam bu mag ci andalus eh, dafa yàgg dégg ahmad ibn hanbal maanaam téereb musnad bi gën a rëy ci àdduna baqi ibn maxlat moo ko taalif mu gàddaayi andalus ñëw baxdaad di seet si ahmad ibn hanbal ndax rek bëgg koo gis ndax bëgg koo ngir yàlla bi mu dikkee fekk ahmad ibn hanbal nekk ci kaso bi ñii nee nañ dafa dellu gisu ko waaye Dahabi nee na Baqi ibnu Maxlad gis na Ahmad ibnu Hanbal ni mu def ba gis ko it dafa ñëw def dara loo xam ne bu ko defee day war a dem kaso ñu dugal ko kaso ngir mu fekk ko ci biir kaso ba gisee moom kon euh, xam-xam yu xóot yooyu ak détails yooyu lépp liñ ci jublu mooy ndax la muy wax ne jëlee naa ko ci Ahmad ibnu Hanbal ndax wér na wala wéru parce que su ñëwoon dellu te Ahmad ibnu Hanbal ma ngi Baxdaad fa la dëkk ñëpp xam nañ ko su fekkoon ne daa ñëw Baxdaad ñu ne ko am ah, mi ngi ci kaso bi mu daal di ñibbi ëllëg su nee dégg naa ci Ahmad ibn Hanbal détails yi xam ne bi muy ñëw ma nga woon ci kaso ba loola borom xam ko bi gardé nañ loola dañuy wax ne lii déggewu ko ci moom parce que ci kaso woon euh, Ibn Battuta bi mu defee lu mel noonu ci rixlaam boobu yi nga xam ne da doon wër àdduna fu nekk mu dem fa nee na bi ma ñëwee Baxdaad dama fekk ibnu euh, Dimashq dama fekk ibnu Taymiya mu toog ci sees daal di ne yàlla nii ma toogee ci sees bi noonu lay toogee ci aras ngir ñaawal rek wax ju jëm ci ibnu taymiya ñi gëstu gis ne ibnu batuta ba muy ñëw dimashq ibnu taymiya nekkul woon dimashq moo woon ci kaso ba te duggul ci kaso ba gis ko kon daa wax waxi boppam waaye loolu wérul gannaaw bi topp nañ ko ba xam ne téere boobu lu bare bari lu mu ciy wax euh, doonut loo xam ne lu wér la bokk na ci yi mu wax ci Afrique bi mu fi ñëwee wax yu ñaaw ñaaw yoo xam ne nee na gis na africain yi di ko dund yoo xam ne wérut ci yooyu lañuy sukkandikoo nag dem ba mu yàgg ñu ne ah diw sàngam du wax ko tub dëgg. parce que gëstu nañ ko ci masal sàngam fekk nañ li wax amut. ñu seetaat ko fi fekk li mu wax amut ñu seetaat ko fi fekk li mu wax amut kooku ñu àtte ko féetale ko boor moom su su waxatee it bu ëllëgee duñ ko faale. noonu lañ koy toppee nag ba xadiis bi bu tegee ci sa loxo ñu ne la xoolal ma xadis bi ci sunan abi daawud ndax wér na wala wérul noppal nañ la léegi sanat baa ngi sa kanam bu abu daawud ne diw nee na diw nee na ko diw nee na ko. saxaabi bi nee na ko yonent bi nee na yow sa liggéey tey ci suñ jamono ji muy man ak yow mooy kii Abu di jëlee ci moom mooy kan seet nañ ko fekk nañ ne commande la wax katub dëgg la te it ab mokkalkat la su waxee ne dégg naa ci moom dañuy xam ne la mu déggee ci moom lu wér la la ca des mooy ndax jàngee na ci kii mu waxam de ñu xool gis ne jàngee na ci nu toxoo ci kooku jàll ci kësës ca moom defaat ak moom noonu suñ ca noppee jàll ca ka ca des ba àgg ca saxaaba yi ba ñu ne ah bii sanat moom chaîne bu wér la su ko defee xadis buñ ca teg bu nekk la ca des rek mooy xool texte bi ci boppam muy na bi ndax dëppoo naag njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am su fekkee gis nañ ne day xotti njàngaleem yonent bi wala muy xotti alquranul karim te kenn mënu koo jubbanti ñu xam ne ba tey loolu mënut a wér jenn waaye jóge fële rek te tegale wax ju mel noonu waaye yàlla dogal na lu mel noonu nekkul ci kutubu sunan yi eh, waaye nag aw yoon la wax ne manes na cee xamee xadis bu wér ak bu wérut kon daal ci gàttal mhm. xam xadis bi wér na ak wérut am njàng la njàng mu xóot moo xam ne dafa laaj spécialisation ni nga xamee ne noonu la ñuy jàngee mboolem fànn yi waaye lu dul loolu nit mën naa toog fële daal di ne loolu moom kenn mën koo xam dafa yombul nag mm-hmm. ñi koy jéem mu jafe ci ñoom ñu daal di far bàyyi rek nga xadis dara wéru ci sax far fekk ci ñoom la dara wérut mm-hmm. waaye fekk xadis moom wér na macha allah alhamdulilah jazakum allahu xayran fadilatu cheikh mu mel ni wax nga ko ne nga jàng la bal sax jàng bu xóot la mm-hmm. ñun dañuy faral di dégg ci sa jàngale lu bari ngay indi ne xadis bi kat ci saxiixu Buxaari la jëm la jóge wala xadiis bi kat ci saxiixu Muslim bal sax jàngale nga ñaari téere yooyu ñu bëggoon a xam ñaari téere yooyu ban place lañ am ci biir lislaam ah xanaa nag place bu rëy rëy nag rek boroom xam-xame lislaam yi xam xadis mm-hmm. dëppoo nañ dëppoo laa wax de goo xam ne ak juyoo amu ci ci ne téere bi gën a wér gannaaw alquranul karim ci kaw suuf mooy téere bu Buxaari gannaaw bu téere boobu jàllee téere ba ci sus mooy téere bu muslim kon ñaari téere yooyu bu la neexee nga ne mooy ñaari téere yi gën a wér ci ay téere yi doomu aadama taalif la ko jox nag euh, doonut doonut ay caaxaan maanaam maanaam liggéey bu rëy a rëy te metti moo tax ñu àgg ci loolu kon maqaamam téereb buxaari ak téere bu muslim ci lislaam bu la neexee nga ne mooy téere yi gën a wér ci àdduna yoo xam ne doomu aadama moo ko taalif boole ko nag ak dajale lu baree baree bari ci li nga xam ne jóge na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay wax ak ci ay jëf ak ci yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koo saxal kon ay téere la yoo xam ne seen place place bu sell la ci lislaam am place bu mage la Euh, lu bëree bëree bëri ci pas-pas yi doomu aadama yi ak ci seeni i jaamu yàlla ak ci seen i jikko ci ñaari téere yooyu ci la jóge ànd ak na ñoom am na ñu leen jiitu woon ci boroomi xam-xam yoo xam ne bind nañ ku mel ne al imam bind na téere muwatta al imam ahmad ibn hanbal bind na téere musnad ñeneen jiitu nañ leen bind ay téere ñoom it biñ ñëwee jëriñoo nañ ci téere ñooñi waaye nag euh, dañoo dolli leneen loo xam ne mooy teg ay chart yoo xam ne bépp xadis bu ñuy dugal ci seen biiri téere day nekk xadis boo xam ne bu wér la loolu ma doon seeni sart ñeneen ñi ci des nag boroom xam-xam yi leen jiitu dañ daan indi xadis yoo xam ne dafa am sanad maanaam xadis bi bu xasee am chaîne bi rek dañuy wax ne ñoom noppi nañ ci parce que ñi ñuy waxal jàpp nañ ne ay boroomi xam-xami xadis lañ buñ dikkee bu ñu xoolee chaîne bi danañ ci xam la wér ak la wérul ñu segg ñooy seggal seen bopp lépp a ngoog daal yéen segg leen li leen ci arrangé wala li nga xam ne moo ci wér ngeen jël ko li ci wérut ngeen teg ko ko leen noonu lañ doon taalife lu jiitu Buxaari ak Muslim ba ci seen jamono nag ci lañ commencé di taalif nag loo xam ne dañ koy ber mu nekk lu wér macha allah alhamdulilah mu mel ni yaa ngi koy junj léegi mel na ni ñaari téere yooyu ñooy téere yi gën a wér ginnaaw alquran mhm. te sax yaa ngi koy wax sax maanaam am na sax amaana ñu leen jiitu ci mhm. liggéey boobu waaye fadilatu cheikh lan lañ liggéey maanaam ci yoonu dajale xam-xamu si si yoonu dajale xadis bu wér mhm. maanaam lan lañ liggéey de si particulier ba nga xam ne ñëpp maanaam garantir nañ ni maanaam ñaari téere yooyu ñooy téere yi gën a xam-xam yu jëkk yi li ngay nga xam ne am na loo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokkale mooy sellal yéene ji ndax dañoo jóg ngir fas yéene liggéeyal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir am ci tuyaaba loolu mooy moo doon seen i yëngutu loolu moom ñoom a ko bokkale waaye Buxaari ak Muslim dañ caa fës lool ñaareel ba nangoo def effort Buxaari eh, Xorasaan gëm dëkk rëy ba mu nekkee ndaw jàng xam-xamam yu jëkk la fa jóge di wër monde islamique bi fu mu ne boroom xam-xam nga fa boo xam ne nit ñaa ngay toog di ko wër mu ñëw di ko toog ba jàng la nga yor di ko def ba ñëw màkk dem Madina dem fépp foo xam ne borom xam-xam a nga fi ci njëndi lislaam yi ci jamono yooyu bàyyiwul fenn lu dul dem na fa borom xam-xam yi fa nekk mu jàng la ñu jàng dajale seeni téere ba noppi borom bi tabaraka wa may ko ci xel ak mën a mokkal loo xam ne néew na muy daje ci nit boole ko ku sellal goo xam ne àgg na ci bi muy bind téeréem bi dañuy wax ne xadis bu nekk gannaaw boo xam ne gëstu na ba mu wóor ko ne moom ci nattale xam-xam xadis bu wér la bala koo dugal ci téeréem day jàpp julli ñaari raakaar door a dugal xadis boobu ci téeréem noonu la ko doon def bi mu dajalee xam-xamam boobu ba noppi nag muslim ci boppam moom mooy taalibe Buxaari bi nga xam ne moo gën a sës ci moom rëkk lu mu jàngoon lu nekk mu jàngal ko kon muslim moom mooy Buxaari moo tax kenn ci boroom xam-xam yi day wax ne wala walaw lal Buxaari maa dahaba muslimun wala jaa budul woon Buxaari muslim maanaam du doon kenn ci gàttal kon muslim mooy taalibi buxaari bi sës ci moom nga xam ne lam dajale lépp daa ñëw dajalewaat ko boole ko nag ak lam jàngi ci ay masaayixam moom waaye ay masaayixam it teew dañuy doon masaayixi buxaari moo tax mook buxaari dañoo bokk mm-hmm. ay sëriñ yu leen jàngal ba noppi mu wëlbati ko nag buxaari nekk sëriñam bi ëpp lu mu ko jàngal ci àdduna mm-hmm. moo tax atte euh, saxiixul buxaari ak <coughs> saxiix muslim mm-hmm. dañoo nuroo lool ci lu bari li leen wutale rek mooy buxaari dafa gën a tar ci ay charte sarti xadis yam ciy tër ci wàllu xam-xamu xadis def ca taral lool lool lool ndax eh, xadis bi ni ma ko doon expliqué léegi ngir jegeel maanaam balaa nangu ne eh, diw sàngam mii jële na ci diw du doy rek mu ne ñoo bokkoon jamono ñoom ñaar wala ñoo bokkoon ab dëkk waaye day wér ne moom mii jële na ci moom maanaam day am ab waaye buy wane ni diw sàngam mii jànge na ci diw sàngam mu door koo nangu dugal al imam muslim nag day doyloo ne ñoom ñaari ñoo bokkoon jamono wala ñoo bokkoon bu dëkk te moom mii doonut ku dul wax lu lu mu wax dëgg la su ne diw sàngam nee na ma dañuy jàpp ne wax moo ko parce que moom doonut kuy lëntal maanaam du tëddaliis doonul kuy wax lu amut te bokk nañ jamono wala bokk nañ dëkk mu ne diw nee na ma dañuy jàpp ne moo ne ko nee na ma Buxaari nag du doy loolu wala danaa nee na ma jooju doyuma lu dul su ma amee riwaayab keneen buy wane ni diw muy kat daa jàngee ci diw sàngam loolu moo tax téere Buxaari gën a xuut ci wàllu charte ci xadis yi ci nekk waaye teewul xadis muslim it la ci nekk lépp loo lu wér la moo tax al imaamu Dahabi day wax ne ay téere lañ yoo xam ne jaawaza alqantara maanaam jéggi nañ daal pont bi ba jàll ca wàllaa dex maanaam ñoom nekkatuñ téere yi ñuy gëstu ci seen wàllu wér ak ñàkk gaa wér xeetu lislaam d'accord nañ ci ne ñaari téere yooyu ñaari téere yu wér la. macha allah kon ci xam-xam la tegu rek bañ xam ne lu wér la. alhamdulilah mu mel ni yaa ngi koy wax léegi maanaam xeetu lislaam yëpp d'accord nañ ne ñaari téere yooyu ay tere yu wér lañ. Mm-hmm. waaye fadilatu cheikh ñun léegi-léeg dañuy faral di gis maanaam léegi-léeg sax ay jullit wala ñu dul jullit maanaam di jóg di attaquer ñaari téere yooyu. ba di mm-hmm. wax sax naan wéruñu wala li si nekk maanaam lu baaxul la lan moo waral attaque yooyu ñuy ñuy attaqué ñaari téere yooyu waaw dëgg la xam nga noonu lislaam it maanaam duñ ay dof mhm. buñ dee xeex lislaam dañuy seet fa pàq ba nga xam ne boo fa dóoree mhm. euh, dóoroo su dalee rek maanaam dal na ci lislaam lépp mhm. moo tax damay wax ne ñi nga xam ne dañoo ñëw di dal ci saxaaba yi di wax ci ñoom wax ju ñaaw euh, ñu xarañ lañ maanaam boo gisee chia yeeg orientaliste yeeg ñu mel noonu ñu jël attaqué Abu Hurayra lu nekk ñu di ko wax ci moom lu tax parce que li ëpp ci xadis mooy nit ki ëpp lu mu solo ci xadis su fekkee gor nañ ko mu daanu xadis yi mu solo woon yëpp dañuy daanu moo tax ci benn daje boo xam ne ay chia nga woon da jëlee kàddu dama ne leen waaw lan moo tax ñii wax ñëpp ci saxaaba yi dañuy wax ci Abu Hurayra di dal ci kaw Abu Bakar Omar Ousmane saxaaba yu siiw yooyu lu tax saxaaba yi bu ñuy wax Abyad ibnu Hammaal mosuma ko dégg ci seen làmmiñ ngeen di ko tut ab saxaabi la boo xam ne benn xadis la solo jële ci yonente bi sallallahu alayhi kooku suñ ko goree bu daanoo it garaawul waaye kiñ lay wax ne nag juróomi junni xadis wala ñetti junni xadis wala lu ko ëpp kooku boo ko goree mu daanu xadis yu bari daanul kon attaqué saxaaba yi wala attaqué saxiixul Buxaari wala saxiixul muslim mooy attaqué lislaam boo ñëwee ci téere yi ñu ne moo gën a wér ci xadis nga fexe ba jam ko mu daanu kon xadis bu wér amatut su xadis bu wér amatut lislaam amatut loolu la neex nga wax loolu kon ñuy xeex lislaam ñooy jóg di def loolu li ci doy waar mooy eh, xeex boobu bu yàgg la maanaam orientaliste yi bi ñu ñëwee penk commencé di jàng Euh, yu mel noonu euh, ci yiñ njëkk attaque ci la bokk ak formé ay nit sax yoo xam ne ci ay jullit lañ bokk ci réewi jullit yi ñu fexe ba tàggat leen ba ñu jóg di attaqué sunna ku mel ne Mahmoud Abu Raya ci téereem bi ñuy wax adwa ala sunna nabawiya nga xam ne dafa attaqué sunna daanaka weddi lépp rek te égyptien la boroom xam-xam yi tontu ko ci tontu yoo xam ne yu xam-xame la yu dëgër yoo xam ne ca la jóge torox ba faaw loola lu yàgg yàgg la ndox ci ci commencement siècle ba la ñu génn la woon te borom xam-xam yi tontu bi ñu demee ba ci jamono ji mujj jéet daanaka yu mel noonu lañuy ñuy def ay nit ñoo xam ne dañ leen di former yàq seen i bopp am na waa ji nekk fële ci Australie ñu naan ko Moustapha Rachid ci jamono yi ñu weesu ay juróom-ñeenti at jëm lu nuroog loolu ci la feeñ weddi ne moom sax ku ñuy wax Buxaari amut moom moom nee na nee na saxiixul Buxaari amul voilà moom da ko weddi carrément waaye yàlla toroxal ko toroxal yoo xam ne ci biir wax yi muy expliqué rek wane ne ku jàngut la te nee na moom Azhar la génne day kaalaw kaal ak Azhar ak yëpp donte Azhar ñoom génne nañu blé tax ni kooku mos faa jaar waaye loolu la leen won euh, am na fu muy waxee mu ne téere bii ñu jàpp ne saxiixul Buxaari la euh, ku ñuy wax Jumaa Abu Abdullah Muhammad Ismail moo ko taalif daal di génne fegg woo di ko wone fekk daa fekk téere bi liñ ci bind mooy jamaahu abu abdullahi muhammad ibnu ismail al buxaari mu jàpp ne kooku jumaa la tudd mu ne jumaa muhammad ismail moo bind téere bi waaye ku ñu tudd ku ñu wax muhammad euh, buxaari bi moom amul weddee weddi ñooñu ay nit lañ yoo xam ne maanaam ñu suufe lañ euh, ñoo xam ne dañuy jéem euh, loo xam ne ëpp na leen maanaam dafa dafa weer dañoo tardé suñ ko doon wax loolu la ñuy wax ndax loo xam ne dem na ba xeetu lislaam dëppoo ci li ñuy jëfe tey ci wàllu pas-pas ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu ay jikko loo xam ne ci saxiixul buxaari saxiixu muslim la jóge ak ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga bëgg a xëy loolu nga dajji ko benn yoon loola ku koy jéem moom da ngaa tardé la euh, Zahabi waxoon euh, al Uqayli mu ku bind benn téere boo xam ne da ko tudd kitaabu duafa mooy ñi nga xam ne ñoo gën a feebal ci wàllu xadis euh, dëgg la waxul ne Buxaari daif la waaye dugal na ko ci téere boobu wax ne am na nangam nangam diggante ak Cheikh wax ay wax yoo xam ne yu suufe la bi Dahabi ñëwee daf ne kii day qad aada nafsahu bi idxaali al Buxaari fi hada al maanaam kii lor na boppam ci téere bi mu dugal Buxaari àgg ci ne ko yaa oqaylu ama laka aql aql yow oqaylu xanaa amoom xel kon yu mel noonu léeg-léeg muy am doo xam nag léeg-léeg dawaa fee lan la léeg-léeg bëgg a siiw lay doon léeg-léeg noonu ak lislaam lay doon léeg-léeg noonu ak sunna gu metti lay doon léeg-léeg nga dégg sax ci suñ jamono kuy dem ba naan ah yéen moom lu ngeen wax rek mhm. ne Buxaari nee na Buxaari Muslim nee na mhm. Abu Dawud nangam ñii ngeen di wax nii te sun mag ñi nekk fii di comparer yoo xam ne yu bokkul la euh, nun wala ñi nga xam ne ñooy wax loolu waxuñu ne dañuy nettali waxi Buxaari mhm. wala waxi muslim mhm. wala waxi Abu Dawud wala waxi borom xam-xam yooyu nga xam ne dañoo taalif ay téere ci sunna mhm. waaye ñooñu waxi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam la ñuy nettali ñooñu suñ siiwee waxi yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen siiwal maanaam xadiisi yonent bi moo leen teg place biñ tegu moo tax xeetu lislaam teg leen place biñ tegu waaye su doon téere boo xam ne Buxaari moo ko taalif ci waxam képp muslim moo ko taalif ci waxam képp Abu Dawud Tirmisi Nasaa'i Ibnu Maaja su doon seeni wax kese kon ba tey fàtte nañ leen niñ fàttee nit ñi waaye la tax ñu siiw nag ba am maqaama bi ñu am ci lislaam mooy wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom lañ indi di ko jottali nit ñi ñu mën koo xam mën a xam diine lislaam mën koo dund kon daal ñi nga xam ne ñoo koy jam moom moo xam ñu nekk ci biir lislaam lañ wala ñoo xam ne dañoo nekk ci biir tib lislaam mhm. ñu moom borom xam-xam yi jamono ji nekk ñeñ ca dajeel rek mhm. ñi ngi taxaw ci seen kanam lu ñu wax lu ne ñu tegal leen fa loo xam ne duñ ko mën a dindi mhm. ci wàllu xam-xam su fekkee kuy wax waxi xam-xam la rek waaye su dee koo xam ne nag jàngul xamul dara mel ne Moustapha Rachid nga xam ne li muy wax moom ci boppam mooy weddiwaat boppam euh, kooku moom jërul nag borom xam-xam yi di sonn ci ñu mel noonu di sàng xam-xam macha allah jërëjëf fadilatu cheikh mu mel ni kon leeral nga loolu nga xam ne moom moo tax xëy na ñenn ñi di jug attaqué téere yooyu waaye ñun si gàttal rek fadilatu cheikh bu ñu bëggoon noppalu maanaam lan moo war a nekk suñu position maanaam si ñaari téere yooyu pour noppalu ci attaque yooyu waaw attaques yi de moom xam nga nag du neex a noppalu ndax moom lislaam ci boppam moo mel noonu dafa mel ni attaque moo ko jig sax nag mm-hmm. ndax ba taxawee ba léegi dañ koy attaqué te léeg-léeg jullit yi danañ dem ba mu yàgg ñuy xaw a nelaw su attaque amee ñu yeewuwaat jógaat di di di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetloo ci jamono yu mujj yi xam ne ñii ngi koy caricature yi di def nangam jullit yi jógaat nañ jóggoo xam ne pour delluwaat ci yonent bi ak jàngaat mooy kan ak mel noonu ak même ñu dul jullit sax di ko jàngaat ba di ci tuub attaque yooyu moo ko indi eh, jamono yi nga xam ne feeñ na ay doomu aadama yi jóg di dal ci kaw Buxaari di dal ci kaw muslim yi mel noonu di ndoog yooyu nit ñi jógaat di défendre ñaar ñooñu défendre boo xam ne su fekkuloo ne attaques yooyu am na loolu du am kon day mel ne jullit yi suñ bëggee nelaw rek day am puso bu ñu leen di jam boo xam ne euh, jam googu moo leen di jig dañuy jógaat fas yéene jàngaat lislaam fas yéene delluwaat ci ñaari téere yi parce que leen yéene xam ak euh, lu mënta ñàkk la moom li am solo mooy jullit bi taxawaayam mooy na jàng ba xam téere yooyu lan moo ci nekk mu jëfe ko ndax it indi wuñ nu fi rek ngir nuy défendre Bukhari ak Muslim waaye liñ fi indi ñoom loola lan soxla dëgg la ku bëgg a dal ci seen kaw danañ taxaw ndax lu tax mooy xam nañ ne liñ indi nga bëgg a su boobaa danañ taxaw défendre leen bu wér wér ci xam-xam waaye la nga bëggit doo ko am moo tax tontu li gën a rëy ci tontu lu ñuy tontu noonu lislaam mooy jàng sunna ba xam ko di ko jëfe loolu mooy tontu lu mag li parce que loolu képp moo leen <coughs> moo leen jaaxal ba tax ñuy def loolu su leen wóoree ne attaques yi day yokk loolu day tax nit ñi gën koo jàng gën koo xam gën koo jëfe euh, bu ñu amee xel danañ dellu gannaaw ci attaques yooyu ndax saa bu ñu attaqué mbir bi day gën a jëm kanam l'islam nag moom mel noonu saa boo xamee ne da nga ko attaqué rek day gën a jëm kanam macha allah jazakumullah xayran mu mel ni mbokku téléspectateurs yi sax ñu ngi waaj a egsi si suñu njeexitalu liggéey waaye am na rek beneen laaj buñ la bëgg laaj fadilatu cheikh muy sànq yaa ngi koy tudd ci bi ngay leeral tudd nga imam ahmad ak ñeneen ak ñeneen ñu bëggoon xam ndax am na yeneen téere xadis yoo xam ne am nañ dayoo wala sax euh, dayoo bu bu toll ni ñaari téere yooyu ba pare ñu mën si sukkandiku. waaw euh, laaj bu am solo la mm-hmm. euh, téere ci xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. li ngay war a jëkk a xam rek mooy bind xadis kañ la tàmbali. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeenug lislaam nga xam ne alxuraan dafa doon door a tàmbali di wàcc mu am lu muy wax nit ñi muy xadis nit ñi commencé di bind alxuraan di bind xadis dafa ne bu leen bind lu dul alxuraan lu tax mooy ñii alxuraan tàmbali di wàcc ci ñoom suñ boolee yaar yëpp di ko bind mën naa jaxasoo ndax miinaguñ waxinu alxuraan te doo man jamono yi ne ngay séparé lii alquran lii maa ko wax mu ne bu leen bi laa taktubu anni xayra alquran wa man kataba anni xayra alquran fal yamxu ku bind lu dul alquran na nga ko far ñoom ñëpp ñu far lañ doon def di bind alquran kese di ko def ba ab diir nag bi li ëpp ci alxuraan wàccee nit ñi xam alxuraan mooy lan dëgg dëgg dëgg mu wut ay bindkat yoo xam ne saa bu laay wàccee ñoom la koy jox ne leen bind leen ko suñ nopp suñ ko bindee door koo tasaare xam nañ ne lëj moom doon ragal loola jeex na foofu nag la tàmbalee ni bind leen ku ñu wax Abu Shah jóge ci Yaman ne yonent bi sallallahu alayhi man kat damay def lu ma déggee ci yow rek dama koy fàtte dama bëggoon ñi di ma ko bindal mu ne uktubu li Abi Shah bindal leen ko ñu commencé di ko bind Abdullah ibn Amr ibn al-As tàmbali di bind ay saxaaba di ko critiqué ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu wax rek nga bind ko te moom léeg-léeg day kaf léeg-léeg mu mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man kat damay bind li may déggee ci yow te ñii ñi ngi ma naan yonent bi ale salaatu wasalaam mën naa wax loo xam ne day fekk ay kaf la wala yu mel noonu mu ne ko bindal sama gémmiñ lu dul dëgg du ci jóge kon foofu joxe ne jullit yi ne mën nañoo bind Abdullah ibn Amr ibn al-As mooy ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téere boobu mi ngi ko tudde as-saadiqa as-saadiqa maanaam mooy lu dëgguli ndax moom sanad bi mooy yonente bi nee na ma rek kon mooy téere bi gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi njëkk a bind ci lislaam mooy ki gënoon bari ay xadis it ci sahaaba yi moo tax abu hurayra da doon wax ne maa kaana min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahadun akthara minni xadisan illa maa kaana min abdullah ibni amr ibn al aas fa innahu kaana yaktub wala aktub nee na kenn appelé wu moon ay xadis ci saxaaba yi lu dul Abdullah ibn Amr ibn al-As parce que moom da doon bind te man du ma bind Abu Hurayra da doon mokkal rek kii nag da doon bind noonu lañ continuer saxaaba yi di bind seen yëf di denc kenn ku nekk yor yor sol la nga déggee ci yonent bi denc ko fi béréb di ko def ba mu yàgg nag boroom xam-xam yi door a commencé nag seet loolu ñu bindoon ba teg ko jël ko di ko dajale téere Amr ibn As Abdullah ibn Amr ibn As boobu tey jii ñuy wax ak yow mi ngi ci biir Musannaf Abdurrazzaq nga xam ne da ko jël dugal ko ci biir euh, muy bépp riwaaye boo xam ne jëlee na ko ci Abdullah ibn Amr ibn As wax nañ ne dellu na ci téere boobu ñu ko Saadiq kon dem nañ ba téere yooyu mbind mi tasaaroo boroom xam-xam yi kenn ku nekk la nga yor ci ay xadis nga di ko dajale yi di ko bind ay téere yu mag na tàmbalee feeñ bi ñëwee ba ci deuxième siècle bi di jeex ñu dugg ci troisième siècle bi téere yi gëna a mag muy Muwatta u Malik muy Musnadu Ahmad ibn Hanbal muy téere yi feeñ gannaaw bi nga xam ne yëpp dañoo feeñ ci troisième siècle bi diggante boobu nekk téere yu mag a mag a mag eh, moo xam ay sunan lañ ko tuddee moo xam dañ ko tuddee yeneen façon dawaawin ci biir xadis yooyu yëpp foofu lañ feeñ kon téere yu baree baree bari am na ci biir xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne bokkul ak Buxaari ak Muslim waaye lañuy wax mooy du caagi ni téere yëpp la seen borom def condition ne lu ma ci dugal lu nekk lu wér la euh, foofu la maqaama wér gi Buxaari ak Muslim am ñeneen ñi ci des amuñu ko am na sax ñu joxe charte yu mel noonu waaye na ko Buxaari ak Muslim matale matale wuñ ko noonu parce que ku mel ne alxaakim ci téereem bi jox al mustadrak li tax mu taalif ko nee def ci dugal ay xadis yoo xam ne dëppoo naag charte Buxaari ak muslim te génne wuñ ko waaye biñ ko seetee gis nañ xadis yu bari dugal na ko ci te dëppoowut ak charte Buxaari ak muslim ibnu Xibaan téere bi mu doon taalif saxiix la ci jublu woon waaye gis nañ ne lu bari lu ci nekk ne ko saxiix ibnu Xuzayma gis nañ ne téere bi mu saxiix ibnu Xuzayma lu wér la ci jublu woon waaye am na yu nekk ci biir yoo xam ne wérut la kon dañuy wax ne ñaari téere yooyu dañoo am tawfiqi sunu borom tabaraka wa taala ci niñ chartoon te akug wér noonu lañ ko matalee waaye nag du caagi ni ñoom rek ñoo dajale eh, xadis yu wér yëpp mm-hmm. euh, muslim ibnul xajjaaj bi nga xamee ne eh, xadis bi wax ne man kaana lahu imaamun fa qiraatu l imaami qiraatun lahu ku am imaam su dee jàng ca kaw loolu mooy sam jàng mm-hmm. euh, taalibim bi ñuy wax ahmad ibnu salama daf ne ko ah saxiixun huwa ndax wér na mm-hmm. mu ne ko wér na de mu ne ko lu tax dugaloo ko nag ci sa saxiix bi mu ne ko laysa kullu saxiixin wadaatuhu haahuna lu ci gi ni lu wér lu nekk rek dugal naa ko ci téere bi kon am na lu mu fa dugal am loo xam ne lu mu fa dugalut la kon noonu la demee téere xadis yi bari na mhm. waaye benn bu ci nekk nag yeeyoo na ñu jàng ko mhm. xam la ca nekk ndax la ca nekk dafa bari lool mhm. ndax bu demee ba ay téere ak téere di def lu ëpp lu jege ay cent mille ci ay xadis wala ay quatre-vingt mille ci ay xadis kon nekkatul téere boo xam ne bu woyof la bu ndaw jaadu na jàng ko jàng xam ko borom xam-xam nag liggéey nañ ci liggéey ci wàllu taxriij suñ jamono yombal nañ ko lool boo demee ci musnadu ahmad nga xam ne sooy boo nga ne daanaka mooy téere bi gën a rëy ci téere yi nekk ci loxoy nit ñi tey ay boroomi xam-xam jël nañ ko lépp jël ko xadis par xadis jàng ko ba benn bu ci nekk bu ci wér ñu ne bii wér na bu ci am beneen daraja ñu ne bii beneen daraja la bu ci nekk bu ci wérul ñu ne bii wérul nga xam ne yow boo jógoon tey di ko jàng rek mhm. benn bu de mën ngaa daal di xamub atteen même yow mi nekkul spécialiste ci xadis alhamdulilah macha allah jërëjëf fadilatu cheikh ci leeral yu am solo yooyu mu mel ni sax egsi nañ suñu njeexitalu jàngat xam naa li mujj liñ lay laaj sax am na du amaana du laaj sax waaye ay conseil lañ bëggoon ak ay orientation yoo xam ne da koy jëmale ci mbooleem jullit yëpp ci attaque yooyu nga xam ne dañ koy attaque euh, ñaari téere yooyu sax waaye sax symbole lislaam yëpp sax ak yan conduite lañ war a am ci attaque yooyu loolu day xanaa di laaye biir nag suñ mbokki jullit yëpp rek di laaye biir suñ bopp mm-hmm. ci ne diine lislaam dafa doon diine joo xam ne borom bi tabaraka wa taala da ko wattul boppam nit ki fi mu war a nekk mooy di ñaan yàlla mu boole ko ci ñi nga xam ne da koy wattoo diine ji ndax moom soo ci bokkut it moom keneen day ñëw bokk ci rek wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum su ngeen wanee gannaaw dana indi ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di gën mu ñëw indi leen ñu garde diine ji kon jullit bi day ñaan yàlla bokk ci ñi garde diine ji waaye du ñaan yàlla di bokk ci ñi nga xam ne dañ koy xeex wala ñuy nangoo déglu koo xam ne ko koy xeex la euh, nañ dugal ndaw ñi ñu jàng xam-xam jàng xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mën koo xam ndax ñi xam li ñuy dund lu mu doon ndax it kat mënoo tuddoo sunna te xamoo sunna maanaam sunna dees koy xam doo ko mën a dundoo su ko defee borom xam-xam yi nañ gën a jëm ci lu mel noonu ci di ko jàngale ci jàkk yi di ko jàngale ci daara yi di ko dund nit ñi it di ko gis ndax ñu mën koo dund ci loolu la njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tasaaroo loolu ab liggéey la bu yaatu boo xam ne daara yi am nañ ci ab cër euh, école supérieure yi am nañ ci ab cër euh, école yi nga xam ne ñooy école secondaire yeeg yi ko gën a féete suuf sax am nañ ci cër war nañuy jàngale ay xadis bu baax a baax te di ko tànn ba mu nekk xadis yoo xam ne yu wér la ñu koy jàngal xale yi ci ecole yi ndax léegi léeg nga dégg ay école yoo xam ne it nag la ñuy jàngale xadis lañ ko tuddee waaye lu ci bari day doon xadis yoo xam ne yu wérut la ñu koy mokkaloo xale yi te fekk nekkul xadis yoo xam ne yu wér la kon laaj na cinq bu baax a baax ba xam programme bi ngay jàngale mhm. euh, wér na wala wérut su ko defee lu mel noonu daal bu ñëpp àndee jublu ci loolu euh, ñay weddeek ñay jamak yu mel noonu tontu li ton doon tontul tasaare xam-xam bi ci boppam mhm. ak jëfe ko su boobaa kooku mooy nekk tontu di gën a dal Euh, yàlla na ko borom bi tabaaraka wa taala jàppandal mm-hmm. te lépp loo xam ne ñi ngi koy jëf ci sunna ak di ko wax mm-hmm. lépp yàlla tax te yàlla barkeel ko defal ñu tawfeex defal leen ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbi ajmain kon mbokku téléspectateur Fafa TV yi lii lañ leen indiloon ci suñu jotaayu jàngat di ñaan suñu borom barkeel jotaay bi te lépp li nga xam ne fadilatu cheikh wax na ko fi mu nekk lu ñuy jëriñ kon sëriñ bi dañ lay ñaanal bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj nga tëjal ñu jataay bi waaw di leen gën a soññ bu baax rek góorlu ci liggéey bi ngeen nekk liggéey bu am solo la euh, bañ koo woyofal ndax euh, xam-xam daa am ku koy wax su ko waxee fa mu koy waxee moom boo ko xasee wax rek yaaram dal nay wàcc am koo xam ne moo jël sasu nag parce que yéen jàllale ba ñoo xam ne fekke ko woon mën a dégg mën koo dégg loolu nag mooy seenub liggéey yéen liggéey bu am solo la ndax kat euh, képp koo xam ne teg tele na aw yiw ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee nee na am na yool bu mel ne yoolu ka ko jëfee euh, te luñ sori sori day am yool boobee te du wàññi dara ci seenub yool ñoom itam <coughs> kon tasaare xam-xam lu mel noonu la am euh, boo mënta toog jàngale waaye mën ngaa tasaare xam-xam mm-hmm. li ngay def ak li kiy jàngale di def benn la ñooyam kon sellal yéene yi te parce que yéene def ci anam goo xam ne anam bu rafet la anam bu sell la euh, nangu cee sonn comme ni ngeen ko defee nii yooyu daal mooy yoo xam ne xëy na moom la ñuy daaneele kàddu yi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq ci seen liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu